kon mbokk yi ñu ñëw ci bunt bi ñu ubbi woon insha allahu rabbi doon ci waxtaan ci al muxtadar mooy ki nga xamante ne mu ngi ci sukuraat tollu na daal ci feebar ci niveau bu mu egg rek waxoon nañ bi passé ci lislaam nan lañu koy taxawoo ka fay taxaw nan lay mel ya koy war ya mu war a wax la mu war a def yooyu yépp moom ñu waxtaane aljuma bi wees bu yàlla defee loolu ñu jóge foofu it ñuy dellu seen sago yal yàlla def wér gi muy noonu waaye bu yàlla defee it yàlla def dogal bi jot nit ki wuyu ji boroomam nan lañ koy taxawoo ci yoon ci doom aadama bi war na ko xam bu baax ndax lu am solo la ci dundu doom aadama su summa amaatahu fa aqbara kon nag doom aadama ala kulli halin loolu foog mu am Babacar moo tax sànq rek mbokk mu doon laaj eh, ki nga xamante ne nii eh, toll na foofu xam nga nit soo àndee sa sago rek di nga am say say say say cër yoo xamante ne doo bëgg kenn ku ko xool ku ko laal une partie intime eh, yooyu rawatina boo tolloo foofu kon kii mën a am accès si yow man la toppatoo kooku war na nekk ku am bàmmeelu biir war na mën a nekk ku am secret kon du n'importe ki mooy ñëw di la jege jamono boobule kon war nañ seet koo xamante ne ni moo xam soxna la moo xam wayjur la moo xam doom la moo xam soppe la daal boo xamante ne ni daal am na yërmande ci aji tawat ji am na bàmmeelu biir mën na ko toppatoo kon yooyu dafa laaj taxawul yooyu taani yàlla defee mu jóge fi am na lu war gis nga toppatoo boobule dafa nekk fardu kifaaya maanaa bu amee ñu ko taxawu wàcce na ñi ci des niki noonu bu fi jógee it la say des it la waaye bu ko kenn deful fardu kifaaya ñëppay am daan kon bu ko kenn taxawee wàcce na ñi ci des loolu mooy ci bi ñu nekk bu ñu waxee sanga néew Babacar mbokk yi déglu Safin FM 98 point far du ñëpp la war su ko kenn taxawee wàcc nañu ci des fi koy taxawee comme ni ñu wax war na am nu mu mel foo dem ci bërëb yi ñuy waajale muy morgue yi am na ñu fa ne waaye buñ laa dem ci ñi fa ne nday wax ne toujours am na ñu gën a yey am na ñu gën a yey loolu moo tax ñu ubbi bunt bi pour xam sa diine nga xam lu ci ne ndax do am sa néew rek bayiko mu ngi melni nga am sa sa malaat ya koy bëgg di taxaw ya koy bëgg di taxaw fiir ci lool waaw lu mu génn nag nga bàyyi ko ci yeneen loxo foofu sax nga gën a war a mën fiir war gën man am taxaw ci moom foofu nga war a gën man am taxaw parce que kii génn àddina moo ëpp xarma kiy dund ne bu ñu nit la rek dee dee na déedéet dafa am orme dafa am lu ñu war ci moom dafa am lu ñu war sàmmunte ak moom kon waruñu ko jël rek jébbal ko ku mel ni imaam Shayba rek dem toog fële déedéet da taxaw yow mi nga xamante ne yaay njabootam comme ñi ma waxee sànq nit ki jóge na fi wax nañ ba fa ngay waajalee li naan doggali da ngay takk cër yi ngay delloo nga delloo ko yooyu yëpp waxtaane nañ ko su ko defee nag na ko muur nanga nga muur dara ci kawam yére yi mu soloon mën nga ko bàyyee ah moom bu la neexee bu la neexee yére yooyu bu fekkente ne dafa am luñ ci war a soppi nga dindi ko muur ko lu set defar nga ko ba noppi nag ngay door a ndëj oo Babacar oo Samba si ne ko ah diw jóge na fi ah su ko defee nag ku war a yëg ñu yëgal ko ko muy tàgg gi am yow moo ma waxoon nañ la ne la lislaam day bëggul ay yuux foofale ay fu ma jëm ay torox na ay man yeneen bi déedéet ku mel noonu bokkul ci ñun déedéet man nga ku la gis xam ne kii kat njaxare mu ci moom rongañ yaa ngi ci moom wala nangam waaye kàdd guy jóg ndëg di wane fi ma jëm fu ma nangam lislaam nee na déedéet kon dal la laaj sago la laaj kon ñi ko war a yëg ñu ngi ko yëg ñu ne kat nañ gaaw jenc ko lislaam nee ne su ma amaatahu fa akbara kon nañ ko gaawee nit ki jóge na fi si suba gi waxoon nañ la góor góorlul ba ngoon gi bu mu ko fi fekk ci ngoon gi la góorgóorul ba bu ma fi final lu dul ngant moo am lu mel ni ñu waroon seet ndax déegi noonu la wala xew-xew moo awoon yu ni mel yoon am si loxo waaye bu dul loolu daal jot nga ci nu mu gën a gaawee lislaam nee na moo gën waxoon naa la it bu loolu amee foog nga oo kër docteur comme réew mi noonu la ñu constaté ko yooyu yëpp waxtaane woon nañ ko kon ni koy sange sangu janaaba lay doon comme yow mii ko tiim ni ngay sangoo janaaba muy sangu set façon sangu boobu la ci sangaay li nag danañ ci ñëw léeg-léeg ñii andi nii wala ñiy jiital bi jëkk bi ci détail yu sew waaye ni ko yonent bi jàngale woon ñëpp xam nañ ko te ñëpp noonu lañ koy defe na tàmbalee Babacar mooy xubbi kon li ñuy waxtaane tey xam sa diine dañ bëgg Babacar bu fi jógee sàmba bu fi jógee Moussa bu fi jógee Naajibi bu fi jógee Maam Issa bu fi jógee Libaas bu fi jógee ainsi de suite ainsi de suite ku si nekk man taxawu loolu ci sa njaboot muy góor muy jigéen nga xubbi ko xubbi mooy tàmbalee ci parti yi nga xamante ne sobe foofu lay gën ne nga raxas ba mu set raxas yaram wi yëpp ba mu set nga defee nga defal ko loolu nga xam ne daal sobe taxatul ci moom soo noppee ci loolu fa tabtadi'u bi ghasli yadayhi awalan thalatha marat nga tàmbali raxas loxo yi kon moom aji dem ji yaa ngi ko tëral mu jublu penk su ma nee nekk moo gën wa illaa bërëb ba nga koy defare nu mu mer rekk baax na noona nga tàmbali nag raxas loxo yi ndeyjoor ñetti yoon càmmeñ ñetti yoon yu jiitu yooyu nag am nay détail defoon nga ko avant mu ngay egsi foofu mooy waxoon naa la nga bës ko biir bi tuuti ndax lu ci nekkoon mën a génn yu demee nooy laat nga cër yi yooyu yëpp def nga ko ba pare kon dañu dugg ci sangu mi rek kon ni ngay sang nii rek la bu la ci kenn jaaxal te incha allah danaa la ko baamul ndànk-ndànk nga tàmbali xubbi nga ko xubbi bi mooy tàmbalee ci jumbux bi moo xam góor wala jigéen ñoo ci yem jumbux bi ba ci suuf ba mu set kanam ginnaaw ëlbati bi yooyu yëpp te incha allahu rabbi yàlla mën nañu dimbali balaa yàgg safina dana da dana leen indil télévision ngeen ñaan ci bu baax ba yii yëpp ñi fiy waxtaane yëpp di ngeen mën a jàkkaarloo ñooña luñ ciy wane ñu man ko wane pour nit ki man ko gis nga tàmbali raxas yooyu booy ëlbati nga ëlbati am na ku lay jàppale kenn ñaar nga ëlbati ëlbati bi laajul coono boo jëlee loxo bi croiser ko rek mbaggami boo xëccee rek ndànk mu topp la du ëlbatiku ba dëpp waaye day ëlbatiku rek ak wet su ko defee nga dem raxas foofu yëpp ci raxas bi nag boolaa raxas xam nga wax nañ raxas yaa ngi tiim néew bi waaye awram doo ko gis moo xam góor la wala jigéen kon bu dee noonu la da ngay ut morso bu baax lu mel ni serviette bu bu oyof waaye bu mu yaraax moom ngay lal ci kawam li ko darge ci jumbux bi ba ci oom yi ci jumbux bi ba ci oom moo xam góor la wala jigéen waaw su ko defee moom ngay lal ci kawam booy sotti ndox ci kaw serviette boobu ma tudde serviet rek waaye bu mu mën a doon laal bu mu oyof ba ngay gis awraam awra ji doo ko gis te yow miy raxas si kaw lañ lay sottil ndox mi sa loxo mën na dugg ci biir waaye du sa loxo bii moom ngay jël dugal ko ci biir di nga jël gant nga sol ko bu jëkk morso lañ daan jël waaye daal bul jël gant wu oyof am na gant yoo xam ne boo demee ci hôpitaux yu oyof yooyu déedéet boobu doyul dañ bëgg gant bu tal tuuti nga xamante ne sa loxo doo santiir ne yaa ngi teg sa loxo ci ci awra bi di nga xam ne awra bi ngay raxas waaye pour laal ko mën a xam lii nan lamel loolu la ñuy bañ nga sol gant bu xaw a tal ci sa ñaari loxo yépp nag yow miy defar ki lay jàppale moom mën na bañ a sol gant mais yow miy sang da ngay sol sa gant parce que bëgguñu sa loxo tege ci yaram wi directement morso baa ngi lalu ci kawam nga jël sa loxo dugal ko ci suuf morso bi di bomb ci awra yi ki lay teel mu ngi téye cetu morso bi ba morso bi du bouger ba ngay gis awra bi kanam gi xóot xóot yëpp mu ëlbati la buy ëlbati morso bi day àndax na muy ëlbatee ba nga xam daal doo gis dara incha allah yooyu yëpp danañ ko gën a euh, yaatal si kantanu yàlla kon daal dañu la bëgg a wax foofu ne awra bi daal doo ko gis morso boobu na ut morso bu mat bu ko mën a muur diggante jumbu xam ba ci óom yi buy ëlbatiku morso bi àndax moom suy demaat morso bi àndax moom buñ lay sottil ndox ci kaw lañuy sotti ndox sa loxo mooy nekk ci biir yaa ngi sol ay gants yu tal di bomb kii di sotti bu dee raakol la ñu yor léegi da nga yor sa raakol foo ko soxlaa rek mu sottil la foofa sa loxo ci biir lay dem bu dee bopp bi wala dënn bi wala yu mel foofu moom dangay da koy xool foofu moom amul parce que du du du awra waaye lii awraam moom lislaam mayu la nga teg ci sa bët boo paree ci loolu loolu si xubbee bi même noonu ngay def waaye soo paree sang mi léegi raxas nga loxoon di joor ñetti yoon bu càmmeñ ñetti yoon comme ni ngay def si janaaba booy sangu janaaba mu ne nag nga tàmbali tamit raxas sobe si xam nga xubbi defoon nga ko ba noppi loolu mooy préparer ko waaye bii tamit boo ñëwee boo raxasee loxo bu pare da ngay tàmbalee si jumbu bi jëm suuf bu ko kuy sangu janaaba noonu ngay def kon ni ngay sangoo janaaba rek noonu ngay sangoo bii nag ndox la xam nga xubbee bi léeg-léeg di si boole saabu bombaale ko ba yaram wi set parce que kii dem danga koy préparer ba mu set wicc waaw ngay jël ak savon ko ba mu set wicc sax macha allah waaw su ko defee nag dindi sobe yooyu yépp muy xubbeeku bi ngay def soo paree nag nga jàppal ko njàpp benn benn comme ni ngay sangoo janaaba yow ni ngay jàppe benn benn nga jàppal ko moom loxo gallax ndeku gallax ndeku bi nag jarul ngay jël sa loxo di si dugal ndox mi ci biir gémmiñ gi parce que bu si duggee ndox mi du génnaat parce que moom mënu ko génne te ndox mi moom bu duggee day génnaat faneen te mën na génnaale sobe kon da ngay tooyal rek raxas bomba bëñ yi mais pas ndox mi ngay sol si gémmiñ gi la li nga gis ñenn bu ñu jëlee raako bi dañ koy jël raako bi dëpp ko ci gémmiñ gi déedéet du noonu de loxo mom ngay toyal ah mel ni ku soccal beñ yi gi mais pas ndox mi parce que ndox mom bu ci duggé dé génna té mën na génné sobe do xam nga li ma wax babaka bakken bi aussi bokay koy ko firu do jël ndox mi di ko di ko duggal ci bakken bi parce que day dugg té day génna parce que kii dee mënatul té dara kon yoy sa loxo ngay toyal jël bakken yi duggal sa baaraam yi saraxndiku fiiru biñ aussi bokay bokay ki koy socca ngay def bu ragal du la def dara <laughs> ah bu ragal parce que ki jóge na fi way ñu bari wax ñu ne ñime ñu ma lu ñuy ñimeex lu ñuy ki amu fa jaamu yalla la war nga ci am mbégte ne yaangi jaamu yalla ci ci mom nga bombal ko lolu ba mu set jappal nga ko ben par ben bo paré ci lolu babakar nga rahas bop bi comme na ngay sango janaba nga def ko ñett bu la neexee sotti ci ndox mi bombal ko bu baax foofu nag kawar gi nu mu bari bari nu mu tol kenn wat loo la kawar kenn dagg loo la ay we déedéet bàyyi ko noonu waaw bàyyi ko noonu sopp nañ nag bu dee jigéen ñu pare ñu ne nga defal ko ay ñu koy tudde ñoom ay ay ay ay genre ay laxas rek yu oyof waaw pour mu demaale ko ay laxas yu rafet rek maanaam pour téye kawar gi waaw mais sax santew ñu wat wala dara waaw santew ñu waat wala nit ki dafa dafa létti woon dañ koy firi naa déedéet mais bu dee koo xam ne nag ay mees la indiwaale kooku moom mees kenn du ko yóbbaale incha allah musal loolu moo tax lu baaxul moom jim ko bàyyi rek waaw mais nag bu bu bu léttu woon it jarul nga koy firi waaw mais nag bu fekkee léttul woon boo ko mënee defaraatal parce que kii dem da nga koy préparé waaw lislaam loolu rek da si jublu waaw loo si man rek nga def ko daal pour pour mu mu nekk koo xamante ne macha allah ci ci anam bu rafet la demee boo paree ci côté boobu ci bopp bi nga dem côté ndeyjoor comme ni ngay sangoo set nga boo paree sa bopp côté ndeyjoor ngay jëm tàmbalee si kaw di wàcc wàcc ba si suuf ndeyjoor bi nga raxas parce que dafay dafay tëdd jaaxaan nga raxas kiif si kaw ba si suuf yëpp. booy romb fa nga tegoon serviette bi ci awra bi toujours sa loxo ci biir lay jaar ndox mi day tegu ci kaw rek waaye doo ko gis toujours morsa bi moom mu nga fa si tàmbali bi ba sa jeexi ba nga bomb ba sa suuf boo paree mu ëlbatil la kon ni ñu waxee woon mu ëlbatil la mu mel ni léegi ku ku ku ku incliné wu mel ni ku la wan ginnaaw nga dem ci ginnaaw gi tàmbale ci bopp bi ba ci ginnaaw kon raxas kon raxas nga kanam raxas nga ginnaaw ci kaw ba si suuf kon ni yow jëmm ji boo doon sanga sa bopp ni ngay defee kanam ak ginnaaw moom noonu rek nga koy defal boo paree foofu jël côté càmmiñ ni nga defoon fële ci ndijoor bi nga def ko noonu ci càmmiñam ci kanam ba mu set jël euh, ginnaaw gi ba mu set waaw boo paree ci loolu egg na baneen bi nag nga jël lu mel ni sëddéem voilà nga jël lu mel ni sëddéem parce que sëddéem day tax nit ki du gaaw décomposé wu bu fekkee am na bu amul am na yeneen produit am na ay parfum yoo xamante ne dinañ ko boole néew loolu yëpp pour xet gi daal dañu gaaw déranger parce am na ñoo xam ne bu ñu génnaat dina dañuy gaaw a soppeeku donc bu njëkk bi ndox rek baneen bi nag nga jaxase si ndoxu sëddeem boo ko amee loolu yàgg na sunna la wala xeet yooyu yu mel ni moom waaw daal xeetu parfum ñeneen sax dañuy jël goowe di ko ci di ko ci jaxase di ko jàmbaale yooyu yëpp rek yooyu baax na waaw yooyu baax na su ko defee façon ñetti ndox yooyu ngay ngay def waaw ñetti ndox yooyu ah mm-hmm. kon benn bi day nekk ndox rek benn bi ndoxa sëddeem wala xeetu sëddeem yu mel noonu benn bi nga def si kaafuur mooy xeetu parfum ak yu ni mel kon si ñett yooyu ni nga ko sange si bu njëkk bi bu ñaareel bi noonu ngay defaat bu ñetteel bi noonu ngay defaat ñetti ndox yëpp ñoo bokk façon koy defee kon ni nga sangoo set yow noonu nga koy sange kon jàppama noppa yaa nga fa sarax ndiku baax sël mu baax yëpp nga fa ni ngay sangoo set rek noonu nga koy defal defe naa ne lii wax dëgg yàlla jëfewul waaw defe naa ne Babacar loolu jëfewul kon noonu nga koy defee ma baamul la ko incha allah kon yéen a ngi seen émission xam sa diine tey ñu ñëw si nan la ñuy sànge néew taxaw ko nga ko ba mu dem léegi nag yaa ko war a taxaw di nuyu bu baax ñoom commissaire oustaz mu jël nuyoo jotal ñu ko mbokk yooyu yëpp ñoom Baye Jula Papa Gueye ak ñu mel ni ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu fépp fu mbokk nekk rek yal na yàlla defal leen tawfiix waaye daal bëggoon nañ kër gu nekk mu am ku fa yeewoo ku man lii ndax ku fa jóge ñu man ko taxaw ndax li may wax aji dem ji moom toujours awral di nuyu ñoom Marème mi ci Grand Yoff di nuyu ñoom Ahmed Ibrahim waa Géejawaay waa Muntaga Gaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waa ñam ño ngoom ci maris Aminata Sow Pikine macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax El Hadji di Seck Liberté 4 moom it macha allah mu ngi teewlu bu baax a baax a baax te it yemul ci teewlu waaye mu ngi topp it li nga xam ne mooy qualité technique bi di gën a ñaax di encouragé kon El du Doudou Seck yal yàlla fay taxaw bu baax a baax a baax noonu soxna Binta Mbaye ñoom ñëpp ñoo nekk ci liberté yan yàlla defal leen sutura waa Rufisque Mor Touré ak ñu mel ni ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu daam aussi Touré ñu ngi leen di nuyu ñoo ñëpp waa Touré lañu xam naa ne jamono bi añ nañ ba macha allah Mor Touré daam Touré ñoom ñëpp yan yàlla defal leen tawféex sëñ daam nuyu ñu njaboot gi incha allah di nuyu waa euh, Cambérène papa Gana suñu papa la di nuyu suñu jarbaat ya fa ne ñoom Kolle Yaawa di njabootu suñu papa El Hadj Baye Ngala ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyoo di ko jox euh, libaas mu jotal ñu ko nuyoo bi ñëpp incha allah fàttewuñu maam Salamba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu yal na yàlla defal leen tawfiix maam Marème xari ñoom ñëpp yal na yàlla sàmmaleen Aminata Ndiaye fi si Grand Yoff yal na yàlla fay leen yal na yàlla defal leen si waa caserne ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, massaw si coono yeex yooyu yëpp yal yàlla sàmm leen yal yàlla dellu seen sutura bu baax a baax eh, di nuyu soxna Ndeye Binta Konte unité 10 moom it ñu ngi teewlu macha allah ñoom ñëpp yal yàlla sàmma leen aar leen eh, Moulay Abdoul Aziz As ñu ngi koy nuyu bu baax Ousmane Diaw tey fii ci Grand Yoff ñoom ñëpp ñu ngi topp émission bi soxna Diallo Cité Fadia yal na yàlla sàmm soxna Coro Jaxate ah ñu mel ni ñoom si ñu jaar si Adja ñu ma ñëpp. yal yàlla ziar pa warga pa Amadou Wan El Hadj Baye Ngala ñoom macha allah kenn du leen fàtte. kon nag ni ñu waxee bu sàng jotee dañ koy xubbi bu noppi xubbi mooy tàmbalee fii jumbux bi ne ba ci oom yi soo ko laa def da ngay jël morso serviette nga lal ko ci jumbux bi ba ci oom yi ndax sutura boolaa summi yére yi dara lu mu mën a doon na serviette boobu jàppandi soo summee yéreem yi mu nekkoon bu pare nga jël morceau bi lal ko ci kawam xëcc yére yi ndànk morsa bi tegu fi nga xam ne awraam kenn ko gis moo xam góor la moo xam jigéen soo noppee ci loolu nag fekk waajal nga ndoxu sëddéem bi bu dee geew nga am waajal nga fële ndoxu gooy gi mu tegu ak ndox simple bi mu tegu lu jiitu nag su xubbeeku bi mën nga jël sa njàmpe sa saabu moom nga koy njëkk bomb ba mu set boo dindee sobe yi bu noppi nga jël sa njàmpeex sa saabu nag bomba yaram yépp ba mu set waaw bu jëlee sa saabu sa njàmpe nga bomba yaram yep kanam ginnaaw yep ba mu set wicc loolu yépp da nga koy def ginnaaw boo xubbee ba noppi ba mu set booy tàmbali nag nga jël loxo ndejoor ñetti yoon yaa raxasal loxo am ñetti yoon bi ñetti yoon comme ni ngay sangoo janaaba parti sobe yep wàcc kanam ginnaaw yep sa loxo dem ci biir comme ni ma la ko waxee yaa sol ay gants yu tal nga xamante ne sentir raxasal ko boo paree ci loolu jafal ko jàpp benn benn ni ngay jàppe jàpp benn comme na ngay sangoo fu si nekk nga def ko góor góorlu ba booy egsi si gémmiñ gi bakken yi nopp bi bul jël ndox mi comme raakool moo ëpp ci fa ñuy sang nga tiimal ko ci moom rek bi sotti parce que bu duggee ci moom day génnaat waaye tooyalal sa loxo soccal ko bëñ yi ndeyjoor càmmeñ yooyu yëpp nga def ko bakken bi noonu noppay non waye waaye ndox mi bu ko ci dekkal muy dugg ci biiram kon ni ngay jappé non nga koy jappalé benn par benn so noppé ci loolu nga jël booru jor tambalé ci bop ba rahas ba mu set ndey ndey jor wacc wacc ba fa sarvet bi commencé won nga duggal ci loxo ci biir ñu sotti la ndox mi ci kaw nga bombu bu baax continuer wacc ba sa tank. ba bo eggé fofu ñu ëlbeutil la ka ndank toujours morsa bi topalé la nga bomb ginnaaw gi it ba mu set ci ndeyjoor bi commencé sa kaw dem ba sa suuf soo noppee ci foofu ñu ëlbatil ko ndànk kon moom ni mu tëddee jaaxaan noonu rek lay tëddee xanaa da koy ëlbati tuuti mu dem ndejoor wala mu dem càmmeñ rek waaye du ëlbatiku ba waaye daal li ëpp ci ni muy tëddee jaaxaan lay doon su ko defee ñu ëlbatil ko noonu nga raxas côté càmmeñ kanam ginnaaw ba mu set soo noppee ci loolu nga raxas bopp bi comme na ngay sangoo set ñetti yoon ba mu set wicc nga bomb ko bu baax a baax a baax a baax ba mu set njàpp mi jarul di baamtuwaat boo si ndox moomu noonu nga def ci ndoxu sëddéem bi noonu ngay def ci ndoxu parfum bi noonu ngay def kon ñetti ndox yooyu lañ wax moom la sang bii ndox rek bii siddeem wala lu mel ni sëddéem bu dee produit yi xew léegi ah, wala baneen bi parfum ay camphre wax yu mel noonu yu nga xam ne moom la ñuy utiliser léegi ko defoon ci bu njëkk bi mooy bu ñaareel bi bu ñaareel bi mooy bu ñetteel bi defe naa ne leer na su paree sangu mi mat na la ca des mooy nga jël sa beneen serviette bu bu laalul ndox maanaa nga fompal ko yaram wi ah nettoyé fa mu tëddoon li mu yaat yépp Ah? waaye daal fompal ko yaram yi ba nga xamante ne ku ko solaloon yaa ngi koy solal ku ko lëmasoon tey du am tooy tooy nga fompal ko ba mu set kon jeex soo paree si yooyu nag parfum yi door a ñëwaax fa ngay def wëtee naax yooyu yëpp détails yi sew yooyu bën bën yi bakken tegal ko ci dara si si si bakken bi ut parfum laal defal ko ci poxataani jël zam-zam wala parfum laal ko ci place yi mu doon sujootee teen xëy nga laalal ci parfum oom yi ngi daan tegu suuf nga laalal ci parfum ceti baaraam yi nga laalal ci parfum jëbi nga laalal ci parfum bakken bi nga laalal ci parfum yooyu dañ bëgg place yi mu daan sujoote yooyu am xet gu neex yooyu boo ko defee nag bu pare nag nga door a jël lañ koy lëmase nag ñett ba juróom-ñaar sangaay yooyu nag ñu doon wax benn ba ñett benn rek mooy sunna bi benn bi bu matee sax mën nga bañ dem si ñaar ba ñett waaye ñett yooyu même bu setul mën nga dem ba sang ko ba juróom-ñaari yoon maanaam feex li nekk ci moom setul waaw dañ bëgg daal sang gi daal bu benn sobe am ci moom bu benn sobe am ci moom bu fekkee léeg-léeg nag nga am koo xamante ne dañ ko indi mu indiwaale deret wala yu ni mel na nga raxas sa kemtulaay kàttan bu fekkee am na loo xam ne boo ko laalee deret génnaat te doo fa gaaw jóg yooyu bu boobaa nañ ko kolee raxasal si kaw rek nga bàyyi noonu waaye daal na góor góorlu ba loo man ci mu set na set loolu la yonent bi digle woon mu ne benn bi bu setee baax na bu setul nag na ngeen utiliser ba juróom-ñaar yoon feex na set rek kon nag nga def ko ak ni nga ko war a defee yooyu yëpp kon nag yooyu ñu ñu ñu bàyyi si xel bu baax yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 98 point 2 ci nañuy sange kon loolu mën a la waxoon léegi càngaay bi fardu kifaaye la Babacar kon bu ko kenn taxawee rek wàcc na ñu ci des kon lii mooy sang néew sang néew kon lii Babacar defe naa ne ku ne ci ñun mën na ko. ku ne boo xoolee ni ngay sangoo rek loolu la waaw ah, léeg-léeg nag nga ne diw kaay jàppale ma ndax ëlbati bee wala yére yi loo si minul ñu ñu ñu jàppale la ci waaye daal gis nga li ma doon wax ci moom yow mii nekkoon ak moom nga xool ko bokku lax ko si bees parce que ku ci bees sa buñee di nga xool yaram wi ki nu mu mel parce que bëtu nit moo mel noonu waa diwkat bi ma ko doon dégg ah kii mooy diw ah kii cër bi nii la mel ah fii nii la mel yooyu la ñuy beñ moo tax ki bokk ci famille bi comme néew awra la naka njabootam jege suñu mënul nag ñu dem uti waaye Babacar lii kay yomb na man lii yomb na man te ku góor ku ne war na ko xam xamal ko njabootam waaw soxna si tamit noonu kon lii jafewul mooy sangu set rek amul luñ ciy ragal amul luñ ciy nàngam walla yomb comme ni ma waxee woon it ñu bàyyi yi xew wax nañ ko ci émission bi passé levée de corps yi xew léegi du diine ne levée de corps rek ñu dem dëpp caméra yi jigéen ñi góor ñi jaxasoo foofu loolu du diine déedéet bu dee jigéen la moo fi jóge jigéen ña mën nañ dem fakañ fañ koy sange parce que ñoo koy taxawee waaye ku fa amul loo fay taxawee jarul nga fay dem terew ñu leen dëgg lislaam ñu teewe rob ba waaye nañu nekk sa ginnaaw ginnaaw góor ñi waaye nag léegi bu ñu la levée du corps ñu dem ku nekk sañse ku nekk ñëw toog ñu dëppale caméra yi léegi sax nit ñi comme xam nañ ne caméra ngi fi ñu yokk si yuuxu yi pour mu gën a xumba waaw ah, na xumba rek waaw ah, parce que yooyu addina rek lay indi kon jaru ko ah jaru ko ah, gis naa la yow kay massa gis naa parce que loolu nga ciy jublu léegi da naan bu ma jooyul ñu ne walaa jooyul parce que caméra baa ngi taxaw jaru ko loolu du diin bokk ci dañ ko bàyyi waaw nañ ko bàyyi néew dañ koy suturaal dañ def léegi jël nit ki filmer ko ba ci biir bàmmeel ba wane yëpp yooyu bokkul ci diine yooyu bokk ci mbokk yi nañ ko bàyyi bu leen ko nangu buleen ko nangu waaw bu leen ko nangu waaw yooyu bokk ci kon suturaal awra wax nañ ko weeyi bul ko dagg bul wat bul def dara yi nga fekk ci moom noonu nga koy bàyyi waaw bu fekkee ne ragg ba ñu waxoon sànq ne da koy ragg waaye ragal nga ne bu ma raggee am na faneen fuy génn dara maanaam deret la wala sobe la wala laal gën a laal yaram wi te lii moom setal ko di yomb dangay ngay obligé nga bàyyi ko noonu maanaam setalal sa kemtulaay kàttan loo man bu fekkee cir yi am na lu ci manqué loolu it ñalay taxaw wala famille bu ne di nga xam ndax kii dinañ ko mën sang wala déet ba ci tiimal ko ba ci raxas cër yi lañ fa jot am yooyu yëpp lislaam maye na ko kon lislaam diine jàppandal la yooyu bu amee Babacar ku jigéen it noonu nga koy sange seen càngaay rek moom mooy uute waaye pratiquement amul changement bu bari soo noppee ci loolu nag fomp nga ba mu wow nag defal nañ la càngaay yi su ko defee nañ nga indi loolu pour préparer muur ko def nga parfum yi fa war nga def wëteen def nga ko yooyu yépp daal ci tënk mooy ni ñuy sange su ko defee nag dina am ay ndénkaani ax ah, yoo xamante ne ni kat ku si nekk war na ca bàyyi xel yooyu jëm na ci càngaay li la ca gën mooy bu ma ne nekk lu weex waaye man nga am bu vert bu jaune bu nàngam bu nàngam bu ci dara waaye daal sopp nañ bu weex perkal wala malikaan te sax léegi malikaan bi mooy gën a jàppandi lu tax mooy eh, awra ji ma doon wax parce que dafa xaw oyof dafa léger malikaan bi moo xaw gën tal tuuti waaw waaye daal bu dee perkal it am nga lu matit baax na donc daal ñaar yooyu baax na bu la bu la neexoon it nga jël basin riche wala jasner wala ganila waaye xam nga loolu doo ko jël di ko jox sa néew bu yóbbaale ko boo matul gars yi futti ko guddi parce que yàq la mais moo tax l'islam comme loolu amu si solo lu du dañ ko koy suturaale kon jarul ñuy seet lu cher lu am ñu ko koy sàng loolu moo tax rek ñuy seet lu oyof maanaam pour xamal nit ñi rek ne du ne obligatoirement lii rek lañ ko war a sànge déedéet moo tax di gis même nit sax dina fi jege ñu ne ah aju woon na de ñu ne ah, ñu ne andi armalam serviette ya mu daan làmboo ñu ne nañ ko indi ñu sànge ko ko kon daal nañu seet lu ko mën a suturaal rek kon jour ci waxtaan ni ñu doon waajalee ki toll fenn fi ci feebar ci sukuraat ba ni muy wujjee boroomam nañ koy taxawoo ci loolu la ñu nekk tey Euh, su ko defee di nuyu soppe yëpp macha allah fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, yal na yàlla defal leen tawfiix euh, Abdoulaye Sow taximaan fële si Jëndeer El Hadj Mamadou Mbeng Kaboy ñu ngi koy nuyu Soxna Caba Ali ñoom ñëpp ñu ngi nuyu Sali Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax soppe yi ne Ndengaañ Pape Assane Gueye macha allah mu ñu nuyoo waa xadara bi yëpp Imaam Saleh ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen tawfiix Abdoulaye saar Guinté ñu ngi koy nuyu bu baax. Euh, yann yàlla sàmm leen aar leen yann yàlla doolu seen sutura mbokk yi nga xam ne fu ñu nekk rek ñu ngi euh, topp rajo bi di ko bëggee yann yàlla sàmm leen lépp lu jëm ci yoo fax lu ko war libaas Pape moor nga jiital ñu nuyoo bi yann yàlla sàmm mbokk yooyu yëpp yann yàlla doolu seen sutura kon nag comme ni ñu koy defee rek euh, mën nañu ubbi ligne bi ci 88 628 10 95 fàttew ñu maire mbay nekk fii ci Grand Yoff di waa Casamance ñu leen di nuyu ñoom ñëpp incha allah ci 88 628 10 95 mooy gu mu jokkoo gi nag ku fëgg rek Samba dina la ubbil incha allahu rabbi kon nag mbokk yi Babacar gis nga noonu ñu doon wax. salaamaaleykum wa rahmatulah. wa El Hadj Malick. ñu ngi ziar. lay nuyu bu baax. di leen jokkale allah ñu nit kazalik. leeral am na solo macha allah. jërëjëf jërëjëf. dama yàlla ak topp. allahuma amin amin. yàlla yàlla barkeel lépp. allahumma amiin yaa rabbi. di ziar macha allah. ak yëpp daal suñu walaay dëgg la walaay dëgg la teg maam Amadou Sow. dëgg la jërëjëf. macha allah kon nag soppe yi ñoom ñëpp jël nañ seen nuyoo jox ko maam Amadou saw muy seen mag maanaa di seen maam di seen lépp yan yàlla defal leen sutura ci 88 628 10 95 bismillah. salaamaaleykum wa rahmatulah. wa barakaatuhu Dia ñu ngi lay ziar amin amin amin amin Dia. jërëjëf Dia jërëjëf. jërëjëf Dia. jërëjëf. jërëjëf. Mhm. waaye ku ñu wax nag bokk na ci moom ku gën a si gën a si. waaye malade boo xam ne dafay fekk dañ ko jël. te doo xam ne keneen bi. du ay teggin. Mhm. wax dëgg yàlla loolu na ngeen baax a baax a baax waxtaan bi sax. jërëjëf te mooy ci li jërëjëf jërëjëf. waaw ak ñoom tamit la muy yëngal xam na bi. baax na jërëjëf. commissaire Mbacar Gueye. commissaire macha allah jërëjëf. macha allah Ibrahima Bass. Uh-huh. jërëjëf Dia nuyul ñu njaboot gi yëpp incha allah jërëjëf Dia jërëjëf macha allah donc loolu moo am na solo su ko defee yooyu yëpp danañ ci taxaw bu soobee yàlla nit ñi su ko defee daal discipline di am ci béréb yi ñuy defare nit ñi ña fa war a nekk nekk fa allo salaamaaleykum. allo allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wan. na def waay mbay wan wan wan pa wan wan xanaa di la namm rek wallaay raw wan yal nañu yàlla defal sutura <laughs> amin yaa rabbi wan sëriñ day nii lay mel wallaay jërëjëf wan sëriñ xam na xam le jërëjëf jërëjëf diine moom ñette la dim muñ yaat macha allah jërëjëf ñett yi ku bu am xam nga diine askay askay wan ñeenteel bi mooy xol bu rafet xol bu rafet jërëjëf loolu yëpp ci diine la bokk. jërëjëf wan jërëjëf wan maa ngi ñaanal nag eh, Thierno Hamidou Yero Bane wallaay mu ngi lay dégg di nangu maa ngi koy siyaara ci ajjuma bi moom ak ñi ma mu ngi lay nangul ziar teg na la sa loxo maa ngi koy siyaare bu baax baax ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg maa ngi siyaare Baye Ngala moo génn léegi maa ngi siyaare Ndongali Gaye Ndongali Gaye jëm mu ngi lay dégg maa ngi siyaare vie Amadou Sow vie Amadou Sow mu ngi lay dégg maa ngi siyaare lépp. ñëpp nga lay dégg. lépp ki nga xam ne fii nekk foofu di wax di ashadu an laa ilaha illa allah. muhammad rasulullah. ashadu anna muhammadan abdu rasul maa ngi koy siyaare. wallaay wan wan wan jërëjëf. yàlla nañu yàlla defal jàmm nag. macha allah jërëjëf. foofu laa bëggoon julli tey fekk am na ay gan. fekk nga am gan noonu la yéene bi mat na. maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu euh, Thierno bu baax a baax. mu ngi lay dégg incha allah. Thierno. Mm-hmm. Vallahi Thierno la. wallaay dëgg la macha allah. Thierno. lépp mot na lépp. Maşallah. allah. ci biir ak bit. wallaay dëgg la. Thierno. wallaay mbiram war nañ ko seet de. est-ce que est-ce que nit ku yàlla la. wallaay macha allah nit ku baax la. maşallah. allah nit ku oyof. Maşallah maşallah. macha allah. sëriñ noonu laay mel ni day oyof. alhamdulilah alhamdulilah. parce que li mu yor. day wax ne yàlla nee na yonante nee na mhm, mhm, mhm. xam nga depuis bi ñu juddoo loolu rek lañ dégg moom tout le temps wallaay dëgg la wallaay dëgg la sëriñ loolu lay maandoo dëgg la dëgg la yàlla na ko yàlla defal sëriñ nag allahumma amiin yaa rabbi yàlla na nañ defal jàmm amiin yaa rabbi maa koy nuyu bu baax a baax a baax a baax wallaay ñu lay nuyoo yow itam ne ku yaru nga. jërëjëf wan jërëjëf. ku teey nga jërëjëf wan jërëjëf. ku am xel nga. jërëjëf jërëjëf. wallaay munoon na def na gars yi ni mu def waaye yar moo la ta moo la def noonu dañu la yar. jërëjëf wan jërëjëf. yar ñu baax la ñu yar yal na la yàlla defal. toujours allahumma amiin yaa rabbi wan. maa ngi lay nuyu bu baax bu baax bu baax. amiin ñu nit kazaalika incha allah di yàlla ci àjjuma bi. incha allah wan wan jërëjëf yaa ma too nag. bàyyi naa wax yàlla moom. wallaay jërëjëf ku baax la ku baax la. jullit akal la. wallaay macha allah. ku maandu la. est-ce que est-ce que est-ce que. dafa tabe moom ak jabar ji. macha macha allah macha allah yal nañu yàlla barke jubal bi rek amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi ñu bàyyi bàyyi ngaa la jaañ bu baax a baax bàyyi ngaa la jàmm mu ngi lay dégg a mu ngi lay dégg walaay walaay walaay. jërëjëf jërëjëf macha allah. jërëjëf Paa Amadou Wane macha allah Paa Warga yan yaa defal ko tawfiix kon nag yan yàlla defal ñëpp tawfiix ci ñaan yooyu muy ñaan di nuyu Paa Wan aussi fii ci Scat Urbam mu ngi déglu jamono bu ne mos euh, njabootam maire euh, ñu ngi leen di ziar bu baax ñoom it jamono bu ne rajo bi la ñuy wéttale ko Safina ñoom it suñuy soppi lañ nekk ñun fii ci Scat Urbam ñu ngi leen di nuyu bu baax kon Paa Wan baa ngi noonu ah ñu mel ni ñoom soxna Fatmata Cissé ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax képp ku dëkk Scat Urbam amo yi ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen tawfiir euh, fàttew ñu waa Okam waa Ngor ñu ngi leen di nuyu bu baax waa Rufisque Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen tawfiir kon nag euh, noonu ñu waxee allo salaamaaleykum. waaleykum El Hadj Doudou Seck ñu ngi ziar. <laughs> maa ngi ziar. tey tey moom tane na. <laughs> tey tey tey ñëw na. <laughs> alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah Seck jërëjëf. Ah, message bi jàll na. jërëjëf Seck jërëjëf. mooy daal fekkoon na ko dem ñu defal nii nga waxee. wallaay dëgg la. Ah, kon yërma dana am. alhamdulilah. yal na yàlla xéwale tere. amiin amiin yaa rabbi. ba nii lay déggee ñu ngi xool ñuy démonstré. incha allah yàlla mën na ko incha allah ñaan leen rek ñaan leen rek Seck jërëjëf Seck amiin yaa rabbi taxawu sàmm ko. jërëjëf soxna soxna ñi ma. jërëjëf Seck moom it nga xam ne wallaay wallaay yàlla yeggal yéene allahumma amiin sëg yeggal seen yéene ñëpp amiin sëg amiin sëg jaare ñëpp nag ci àjjuma ji incha allah donc liggéey jërëjëf engagement li mu génn léegi mm-hmm, mm-hmm, euh, mm-hmm. macha allah faddu daa jóg jërëjëf ngeen di jaare ñoom ñëpp laaj Amadou Sow Pa Amadou Sow borom ñaan yàlla na ko yàlla amiin yaa rabbi waay jaare ñëpp nag góor du génn léegi diwaan boobu ah, Pa Amadou Wan moom ko ñu ngi koy jaare moom itam macha allah ak góor du sopp da baax jërëjëf sopp da baax wallaay jëf sëg Diom Ndiaye macha allah amiin yaa rabbi jërëjëf jërëjëf sëg ñu ñu waa liberté yëpp incha allah macha allah jërëjëf jërëjëf El Hadj Doudou macha allah kon nag ci 88 628 10 95 di ñaanal ñëpp rek ñi woote ñi wootewul macha allah eh, soxna Ramatulaay am na ñuy jaar ci ligne bi Ramatulaay ànd ñoom ah ñu mel ni ñoom ñoom ñëpp ñu ngi nuyoo di wane léeg-léeg bu ñu leen déggul rek xat-xat yi kon nag yàlla yàlla sàmm leen aar leen kon nag ci taxawu néew defar ko li nga xamante mooy parfum yi ñu ciy def. yu ñu soppala Babacar ci manaan mañ koy defal yooyu yëpp def ko ci yaramam yi seet parfum bu baax nga xamante ne méngoo na ak moom ñu defal ko ko ci place yi studio yi comme ni ma waxee léegi euh, yére yi ñu koy defale aussi càngaay li allo salaamaaleykum. waaleykum salaam imaam. Libaas ñu ngi ziar. ñu ngi Libaas. sant yàlla bu baax. waa noonu la yittee naka waa Yoof. Ah, ñëpp a macha allah. des fois da nga xam ne yàlla xam ne. dëgg la ngay dëgg la. yàlla xam ne dëgg rek ngay bëgg. wallaay dëgg la wallaay waaye nag noonu la si la bokk. des fois point yi ngeen toll dafay xale dëgg la dëgg la li baas dëgg la. buñ ñàkk a fexe rek nag buñ ko ñëwee xam nañu loolu. waaye lépp ba la. lépp si la noonu la noonu la. lépp barke la. El bu ma ko laa fàtte mu ngi lay nuy bu baax Omar Diagne mu ngi ne mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp aussi oh, oh, incha allah waaw mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp wallaay ku baax la ku baax la borom xam-xam la macha allah soxna Ngoone Ngom aussi mu ngi lay nuyu ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf libaas amin ya rabbi amin amin ya rabbi allahuma amin amin sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf waa yof ñëpp a koy jot allahuma amin amin ya rabbi mhm. jërëjëf jërëjëf mhm. macha allah jërëjëf libaas nit jàpp na ne xam na mhm, mhm. mais bu ñu waxaatee yow su mhm. li nga ne jàpp na ne xam nga dañu si ngay amaat problème nga ne nekkate yoo xam loolu xam nga si woon dara mais lépp daal ñu ngi ñu ngeen koy defal macha allah jërëjëf yal na yàlla barkeel la allahuma amin yaa rabbi doon bi Amadou wan jërëjëf génn léegi wallaay dëgg la nga xam ne yéene ak xolam la waxee ko dégg nga xam ne yéene ak xolam wallaay dëgg la wallaay dëgg la yàlla fayal wallaay dëgg la wallaay bàyyi ngaa la Amadou Sow vraiment allahuma amin yaa rabbi allahuma amin sallallahu alayhi wa sallam amin yaa rabbi amin yaa rabbi jërëjëf libaas ñuy ñu soppe yooyu yëpp incha allah macha allah kooku mooy libaas Diouf macha allah yan yàlla sàmm leen aar leen ci 88 628 10 95 kon nag yére yi ñu koy defal aussi ñu def ci parfum moo xam xeetu goowe la wala yu ni mel rek muy xeeñ lu neex parce que nit ki dem dafay gaaw di soppeeku kon nag ki ñuy jébbal boromam it nañ ko waajal bu baax a baax yooyu yëpp ci la bokk ak xeeti parfum yu mu man doon rek nga xam ne méngoo na ak moom allo salaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam. wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ngi ziar bu baax Ndiaye. waaw Ndiaye Ndiaye. sant yàlla bu baax. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. ah bi tey. Uh-huh. wàllu ñu ngi uh-huh. proposé. Uh-huh. c'est parce que pour euh, ne war na sonn jërëjëf jullit bi weesoo ñeneen am na yi nga xam ne yëpp dafa ànd ak diine dëgg la loolu loolu ñu ci xam baax a mhm. baax war luñ luñ ci xam boobu am luñ ci xam mhm, mhm. parce que on est on sait bien am nekk ci circonstance te boo ko defee vraiment waroo dellu ginnaaw waroo dellu jërëjëf. moo tax ngi taxaw. Mhm. jërëjëf Ndiaye. te xam naa bu ñu amee yeneen question complémentaire. incha allah jërëjëf. bu soobee yàlla. mais man depuis keroog bande bële bi ma lay maa ngi jéem a dugg mais mënu woon mhm, mhm. dafa amoon benn euh, question moom bu doon posé. ba bismillah. parce que foofu ci prière la. bismillah. prière bi moom mooy euh, julli fajar. bon boo jógee si kër nga julli ko. Mhm. boo demee ci jumaa ji nan nga war a def nga war a dugg ci biir. Mhm. wala nga war a taxaw parce que da ngay gis ñi dañuy taxaw. Mhm. dañuy dañuy bëgg taxawal. ñu dugg jërëjëf. ñii bu ñu duggee aussi dañuy def dañuy dugg. Mhm. rek daal di toog. Mhm. am na ñi nga xam ne dañuy dugg taxaw. Mhm. vraiment man dama si am jiite jaaxata. jërëjëf jërëjëf. lan vraiment ngeen ñu ciy recommandé. incha allah ñu la ñu war a def bu fekkee jóge nañ julli nañ suñu ñaari rakk yi. jërëjëf macha allah dem avant ñuy dugg ndax bu ñu duggee si joxe ndax dañu war a julli ñuy euh, euh, jumaat. Mhm. jërëjëf question lay question lay question mais boo ma répondre tey parce jërëjëf par plus tard ba tontu daal ma am nga nga xam xam li mu recommandé yow jërëjëf jërëjëf ma xam ne lii la ma jërëjëf jërëjëf incha allah buñ laa jeexal danañ ci ñëw bu sooba yàlla incha dinañ ci ñëw bu sooba yàlla jërëjëf Ndiaye ñu ngi kontaan bu baax jërëjëf macha allah di nuyu waa Scat Urbam yëpp allah ci 88 628 10 95 kon dëkk yal na yàlla defal ñëpp tawfiix kon dëkk bokk na ci yooyu waajal ko bu baax Babacar nga xamantene do do bayyi dara lepp lu mu laaj ci walu set ci walu waajal ko allo salaamaaleykum alaykum wa barakatuhu imam ni ngi leen ziar ñu ngi delo ziar pa Mor ba yéen a ngi si jàmm fay alhamdullah ñu ngi ci jàmm ma ngi nuyu ñëpp ñëpp nga lay fay jërëjëf ma ngi ziar ñëpp ñëpp nga ngi la koy delloo di leen balu ak jërëjëf jërëjëf ndax jëjë oote yi jàmm rek la woon wala yitte yi rek waa xam nañ la yitte yitte jamono bi rek walaay dëgg la walaay dëgg la wi neex na trop macha allah jërëjëf di rek ci ñaanal ñi nga xam ne mooy suñu tàngkat yi nekk yow walaay jërëjëf ñoom Papa Gueye vraiment ay jàmbaar lañ. macha allah jërëjëf. ni nga ko bëggee yow noonu lañ la koy defalee. dëgg la jërëjëf jërëjëf. te yow boo ko ñëwee doo ci am dara lu la naqar. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. boo taxee bañ defaral ba pare bii boo ko ñëwee. lu la naqari doo ko am. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. ni nga ko waxee noonu la ñu koy def. jërëjëf macha allah. noonu noonu nga ko waxee noonu noonu lañ ci teg yi virgule. macha allah macha allah. di ñaanal ñëpp. jërëjëf ñoom Papa Abdou Wane. jërëjëf Pape Amadou Sow ñun ñëpp daal maa ngi leen ñaanal libaas bu mu fàtte ma ko libaas walaay dëgg la walaay dëgg la sama mbokk macha allah macha allah aa rajo jërëjëf jërëjëf tàggoo di yàlla moom jërëjëf maa yàlla defal la tawfiix jërëjëf Pape Mor Faye macha allah yal yàlla sàmm ko yal na yàlla aar ko kon nag noonu mu wax gaay yi ñu ngi leen di nuyu jël nuyoo bi di ko jox euh, commissaire oustaz macha allah Thierno Mbengue mu jotal ñu ko mbokk yëpp salaamaaleykum wa barakaatuhu bismillah waa kay sow sow sow waa kay sow ñu ngi ziar bu baax sow ñëpp a ngi si jàmm walaay sow walaay ñu nit kazaalika sow walaay jërëjëf sow walaay sow jërëjëf Sow jërëjëf wallaay saw amiin yaa rabbi Sow amiin Sow jërëjëf ñëpp a ngi la koy delloo di la ñaanal tamit wallaay jërëjëf jërëjëf. Mhm. Mhm. macha allah jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. macha allah jërëjëf jërëjëf. wallaay jërëjëf. xam a ngi la koy delloo sow wallaay wallaay jërëjëf waaye si moom la wala yéen a baax rek yéen mag ñi macha allah yéen a baax rek rek jërëjëf sow jërëjëf jërëjëf amin yaa rabbi amin yaa rabbi sow amin yaa jërëjëf jërëjëf sow alhamdulilah jërëjëf Sow xam naa wàllu ligne bi moo tax mu dog macha allah Pape Amadou Sow yan yàlla defal ko tawfii di nuyu mbokk yëpp ñi nga xamante ne macha allah ñu ngi teewlu émission bi fu ñu mën a nekk rek soppe am di jàmm yi yàlla defal leen tawfiix yal na yàlla dolli seen sutura bu baax ñu ngi jot ay ñaan ci ay mbokk yu bare bare ñuy ñaan di rafetlu liggéeyu rajo bi sax la ñuy wax kon nag yàlla yàlla sàmm leen ni ngeen di toppoo émission bi tamit kontaan nañ ci bu baax. lu euh, ngeen gis rek loo xam ne buñ ko doolee dana gën a baax rek euh, dana ci baax yal yàlla defal leen sutura euh, am na ñoo xam ne dinañ bëgg oote léeg-léeg waaye ñu nekk ci seen bërëbu liggéey wala mu xat waaye ñu ngiy déglu léeg-léeg bu ñu paree dinañ yëkk seen téléphone oote ainsi de suite ñi nga xamante ni léeg-léeg émission bi na leen fekk ci aw yoon ñu dem ba egg door a déglu ñëpp ñu ngi leen di nuyu allo salaamaaleykum wa barakaatuhu allo allo ah dafa rëcc na waaw léegi Samba nga xoolaat kii bi xam naa dina egsewaat incha allah mu déggante bi gën a neex incha allah ci 88 628 10 95 88 628 10 95 88 628 10 95 gu mu jokkoo ku fëgg rek incha allah. Eh, danañ la ubbil soppe yi oote yëpp macha allah ñi nga xam seen xel yëpp gis si yëkki seen téléphone oote waaye jàppandiwul eh, seen yéene egsi na ñu ngi koy yëg fi ñu toog xam nañ ne yéen a ngi ñaan eh, dooli leen ñaan yi rek kër gi gën a jëm kanam émission bi seen émission la incha allah képp koo xam ne am nga laaj si wàllu diine wala yu ni mel soo ootee rek ci kër gi danañ ñu indi laaj bi ñu ñu gëstu ko càmbar ko inshallah bo fi oté rek laaj bo fi andi dañ ñu ko andil ban nga ñu oo it directement suñu numéro comme ñu koy waxe jamono bu ne allo wa alaykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar aja man la kolle ah kolle ñu ngi lay ziar bu baax ja gën nañ déggante jërëjëf jëf wallahi dëgël ja naka yi naka wa kàmbareen ñi nga fa ma sha allah sha allah Jangan mujj ma lay woo sax pour wax la ñu ngi lay gërëm ci taxawaay bi rafet na lool walaay dëgg la jaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla na la ko yàlla fay yàlla na yàlla doole sutura bu baax Allahumma amin sant yàlla bu baax a baax a baax waxtaan bi neex na alhamdulilah neex na trop macha allah jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla mottali ñooy ziar ñëpp di ziar paa bi ak mère famille bi yëpp ñoom ñëpp waa ñu ñu ngi koy dégg incha allah waa kay dégg naa ko bu baax xam naa bés bu ñu gisee nga taaril ma li ñu li ñu waxtaane incha allah waaw am <laughs> merci baax na jaakol la jërëjëf nii ñu yaa awa incha allah dina ko dégg incha allah macha allah jërëjëf kon nag si 88 628 ñooñu ñooy suñu mbokk yi nekk Cambérène di déglu waa Cambérène ñëpp ñu ngi leen di nuyu waa Ahlul Bayti ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar yan yàlla defal len sutura kon nak ñu ngi jige waxtu yi babakar préparer ñu heure julli di ñaax rek mbokk yi ne ginnaw ëlëk dimanche inshallah le bisu bésu vote bi législative yi nañu andax dar rek allo salaamaaleykum. alaykum salaam. waa kay ah. man la Mame Marème Mame Marème ñu ngi ziar. ñoo ngi ziar. alhamdulilah alhamdulilah. may kontaan nañ jërëjëf jërëjëf yal na yàlla kontaan. émission bi am na solo. jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah yàlla bi. allahumma amiin yaa kontaan nañ trop. yàlla sàmm leen yàlla sàmm leen. alhamdulilah yàlla yokk allah ñooñu ñëpp incha allah dinañ ko dégg bu soobee jërëjëf merci eh. beaucoup merci merci Ahmed ñu ngi lay ziar ñoom it maa ngi leen koy bu baax mu ngi ñaan rek ah alhamdulillah alhamdulillah kooku suñu mag la macha allah waaw waaw loolu am yàlla sàmm ko bu baax ya, jërëjëf merci beaucoup jërëjëf macha ya, allah kon nag yàlla defal leen tawfiix ñoom ñëpp suñuy jarbaar la suñuy soppe lañ suñuy xarit lañ ñu ngi leen di xalaat jamono bu ne ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di leen bàyyi xel te ñu ngi ñuy bàyyi xel eh, yal na yàlla sàmm leen kon nag yal na yàlla dolli leen seen sutura bu baax fu ngeen toll rek di leen wax amin xam ne ñu ngi leen di xelaat bu baax a baax wax dëgg yàlla yal yàlla sàmm leen kon nag Babacar waxtu julli yi su ko defee ñu ñëw ci laaj yi bismillah waxtu julli fajar mu ngi si 5h38. Mhm. voilà. Mhm. léegi suba ñu ngi koy bi si 5h53. ngi taxaw julli suba bi. Tisbar mingi ngi si 14 heures et quart. Mhm. Takusaan 17 heures. Mhm. Timis 19 h 47. Gee 20 h 47. jërëjëf alhamdulilah. suba gi nga ne. Euh, taxawaay julli suba bi mingi ngi si 5 h 53. kon salaatu bi mingi ngi si 5 h 38. waaw jërëjëf kon waxtu julli mu ngi noonu. Mhm. cinq heures trente huit mooy fajar gi salaatu ñu taxawal cinq heures cinquante trois uh-huh. kon nag waxtu julli fa Amadou Sow mu ngi noonu cinq heures trente huit salaatu jot na cinq heures cinquante trois ñu taxawal julli bu dee timis boo ñëwee ci waxtu yooyu daanaka loo ci dolli rek timis gi dix neuf heures quarante sept uh-huh. euh, rek jot na incha allahu rabbi euh, waxtu yi si des euh, cinq heures quatorze heures et quart muy waxtu julli kon nag mbokk yi am na yàlla defal ñëpp tawfiq laaj boobu mbokk mi laajoon El Hadj Yoro buñ laaj tëj rek bu amee ku nekk ci ligne bi sàmm na ko dugal julli fajar Babacar mhm. su ko defee kon nit ki El Yoro fajar yonent bi dafa wax ne ñaari ràkki fajar moo gën àddina li ci biir mhm. bu ñu ne salaatu xayru na naw mi maanaam waxtu bi jotee rek moo xam dégg nga ko wala dégguloo ko waxtu wi jot na rek foo mën a nekk salaatu jot na mhm. comme ni ñuy waxee nag ci naafila defé ko kër mo gën farata defé ko ci jàkk mo gën waaye nag comme da ngay def ñaari rakki fajar té bo ñëw si jakk bi mu am lanen lu la waraat ñenn ñi diko defé kër ga ñenen diko defé ci jakk ji kon buñ ne salatu jot na nga waaj ba noppi def sa ñaari rakki fajar ci jakk ji kon def na sa ñaari rakku fajar te ñaar rakki fajar yonente bi saa sallam nee na bu ko defé ba noppi rek julli amatu fa luddul taxawal julli subuh kon kii ñëw ci jàkk ji jóge këram def ñaar ràkki fajaram dox na ba ñëw ci jàkk ji dugg biir jàkk taxaw biir jàkk dugg biir jàkk moo ëpp yool kon boo ñëwee dangay dugg ci biir jàkk ji mhm. te ku dugg biir jàkk am na lu la war mooy ormal jàkk ji muy def tax taxiyatul masjid mooy nuyu jàkk mhm. dafay nuru ax naafila waaye du la di nga am yool bañ lay bindal koom ku jut naafila waaye tuddul naafila tahiyatul masjid la tudd nga def ko yu oyof rek toog kon julli boobu ngay julli tax yetul masjid boobu jotewul ak dara ñaari ràkk fajar kon boo jullee ñaar ràkk fajar ñëw ci jàkka ji rek boo duggee dangay julli ñaar ràkk parce que jamono boobu waxtu naafile la dagan na waxtu nuyu jàkka dagan na si mazhabu imam Malik nag lan lay wax boo ñëwee ci waxtu woo xam ne araam naa naafila maanaam tere nañu ku fa naafila ngay ñëw rek toog lu mel ni bu suba ba noppi lu mel ni bu ñu ba noppi feex jant bi di di di sow boobaa nga remplacé ko ay tasbihaat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar waaye fii nag boo duggee nga xam ne place la bu ñu mën kon mën nga profiter defaale sa tahiyatul masjid la tudd tuddatul naafila ñoo bokk nuñ koy defee waaye bokkuñu jubluwaay kon da nga dugg si jàkka ji da nga koy nuyu parce que jamono boobu may nañ la ko. Mhm. kon ku ñëw daal la gën ñiy taxaw ci biti suñu mënoon di dugg ci biir moo gën boo duggee ñaari rakk yooyu ngay def jotewul ak dara sa ñaari rakk ya nga defoon muy julli fajar. Mhm. bokkuñu kon de ku mën ñëw daal soo mënee dugg ci jàkka ji moo gën te ku dugg ci jàkka ji rek defal ñaari rakk yu oyof muy nangam. bu fekkee nag danga ñëw julli woo woon fajar ma dollil la ci loolu julli woo fajar ñaar ràkki fajar yi te waxtu mu ngi jot nga xam ne fii ax ñuy taxawal une minute deux minutes trois minutes moo fi des peut-être lu mel ni ñaari ràkk ñoo fiy xaj te war nga julli ñaari ràkki fajar war nga def tax tahiyatul masjid parce que jàkk ku fa dugg rek bu waxtu jaadoo naa fi la rek da ngay def tahiyatul masjid bu boobaa kon da ngay yéene boole leen ñoom ñaar loolu la la may mhm. wa illaa nga def sa tahiyatul masjid toog bu ñu jullee ba pare ba jant bi génn tuuti nga fay sa ñaari rakk fajar ñaar yooyu yëpp baax na mhm. waaye daal yéene bi mën nga ko dugalaale fii mooy daal li ci am solo mooy boo ñëwee julli nga ba noppi waxtu wi des na boo ñëwee bul toog si biti ndax kii dugg ci biir jàkka ji toog mooy ëpp yool ki taxaw ci biti kon daal élage yoro ñi koy déglu ñëpp nañuy góorgóorlu ci loolu bu ñu defee seen euh, fajar ba noppi kër ga bu ñu ñëwee waxtu wi des na nañu def seen taxiyatul masjid rek mu oyof ñu toog ci jàkka ji xaar waxtu wi jot yal na yàlla defal ñëpp taw kon nag mbokk yi ci neew yu ci ajox yooyu yëpp mu ngi noonu ko defee ko am laaj bu muy laaj rek toujours numéro bi c'est 77 614 94 92 di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp ñi oote ak ñi bëggoon woote woote ñu jot ay message mbokk yu bare bari di rafetlu ñii dañu jël émission bi en cours parce que dañu nekkoon si yitte yan na yàlla fay leen ñii ñu ngi door a wàcc seen bërëb liggéeykaay nee na sax ñu seen kër waaye mënuñu woote kon nag yal na yàlla fay ñëpp rajo bi seen rajo la yal yàlla sàmm leen kon nag di nuyu ñëpp sàmb si moo leen newaloon ci xarale gi moom it ngeen ñaanal ko bu baax a baax mu ngi def liggéey bu mucc ayib moom Mawhina Birane ñoom ñëpp di jël ah, li ñuy mbokk yi di def yëpp di ko wesaare waat ci ci YouTube bi Euh, émission yi fii jaar yëpp ku ko bëgg rek toujours boo demee ci YouTube bi mën nga di ko fa suivre ba ker ngeen di am seen télévision ak yu ni mel su ko defee bu ngeen demee ci Macken si rek di ngeen ko fa fekk incha allah kooku liggéeyu Sambala biraan ñoom it yal na yàlla fay leen kon nag loolu yëpp si suufu direction soxna ñu ma ba na yàlla fay leen si waxukaay gi seen mbokk Imam Cheyba ba woon ak Babacar kon nag mbokk yi dimanche la élection bi nañu ànd ak dal ku xëy demal nga sànni sa carte delluwaat sa kër jàmm am bu kenn yee fitna ku xëy rek demal su ko defee bu amee ñuy euh, sàkku dara di ko ñaxtu wala nangam nañuy jaar rek fa nga xam ne réew ma ku fa jaar xëj nañu dégg la waaye daal benn fit nañu bañ ko def fu mu mën a doon su ko defee bu yàlla defee ku am ndam ci loola ñu xam ne ndam la waaye sax ndam daanaka du ci am parce que lépp askan wi la rek parce que ñay toogi foofa askan wi la ñu fay toogal kon nag yow yéen ñi nga xamante ne yéen lañu bëgg ngeen toogal fa askan wa na ngeen conscience ci enjeu bi ngeen xam ne nit ñi yeewu nañ léegi nekk ndaw askan wi naa nekk seen bët nekk seen làmmiñ nekk seen lépp ngeen góor góorgóorlu ci loolu te di waxtaan ak ñoom su ko defee yàlla mën nañu defal jàmm ci réew mi def ko ci réew jullit yëpp su ko defee tey fii ci Jumaas 80 ñaanal nañu réew mi yëpp incha allah ñaan nañu bu baax a baax te am na ñu yaakaar na yàlla dañu ñaanal suñu jiital Ceerno Hamidou Bane incha allah di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di len dox daje ba aljuma bi di ñëw inshallah su ko defé nak ñu dugg ci wajal u jaaji nan la ñuy demee lan moy aaj yoy yëpp inshallah borom xam-xam di nañ fi ñëw wétalé wéttalekunte ak ñun su ko defé mbokk yi ba aljuma bi di ñëw wassalamu alaykum wa rahmatullah